ci turu daairatu muqaddamatul xidma ci njiitul sëriñ Afiya Buso ak mboolem bureau daaira muqaddamatul xidma ak mboolem membre yi nga xam ne ñoo ci aju di leen ziyaara bu baax di leen ndokkeel bu baax itam euh, nuyoo bi ak ziyaara bi nag ñu di ko teg ci loxo yi sëriñ Seex Jonn sëriñ Xamsatu Laam sëriñ Mortala Njaay soxna Maymuna Caam ak soxna Maam Jaara Fay ak bokk yi nga xam ne ñoo nekkee ci Amérique ñëpp wala ci àddina bi yëpp te seq liggéey bii di fondation euh, muxaddamatul xidma ci Amérique di rafetlu seen taxawaay bu baax a baax a baax di leen xamal ne liggéey bi xëy na bi mu tàmbalee ak léegi yàggagul waaye gis nañu ne indi nañ fi liggéey bu ama am am solo bu jëm ci liggéey bi muy xaddee ju am solo ju jëm ci liggéey bi joo xam ne ñi ngi ci doon jëflante ak mboolem bokki bi yi nga xam ne gis nañu plateforme bi te fas yéene barkeelu te barkeelu yooyu ñu séddale woon ko ci ay pàcc benn bi di entretien jumaa ji beneen bi jëm ci weeru koor beneen bi jëm ci bàqiyan muy armeel yi ak morgue bi ak yi ci aju beneen bi jëm ci màggal Tuuba beneen bi jëm ci gàmm ñuy xamal bokki jullit yépp ak bokki bi yépp ne mboolem loo xam ne waaye participer woon na ko ci loolu agsi na te bi mu agsee itam ràññale nañ ko ba lenn lu nekk mën a jëm fa ko taxoon a jóg ci loolu nag ñu di leen sant bu baax di leen gërëm bu baax ci yittewoo ji nga gi nga xam ne yittewoo nañ ko liggéeyub sëriñ Tuubaa bi ci jumaa ji ak li nga xam ne ñoom la sëriñ bi teg ci loxoy daayira Muxaddamatul Xidma te muy ay liggéey yu rëy yu am solo yoo xam ne ñoom murit yépp ñoo ko seq waaye fondation bii nag di ci doxee doxin wu am solo wu organisé wu wu rafet woo xam ne dara manqué wu ci kon nag ginnaaw bu ñu leen cantee jaajëfal leen gërëm leen ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne ñi nga xam ne ñooy administré euh, fondation boobu ñu ngi koy taxawee ak ñi ñu ko séqal te mooy ñu ci participer ñëpp ñu de ñuy yëgal ñëpp ne fondation ngoog boo xam ne lépp lu ci waaye def mu jëm si ci jumaa ji dana agsi te noo ko foo ko foo bëgg mu jëm fa itam fa lay jëm insha allahu taala ndax ñoom liggéey bi set na rafet na wér na te kenn ku nekk itam la nga ca def na mu toll ak fa mu jëm loolu lépp agsi na ci ñun ci loolu nag kon ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp waaye di sañ ñu mboolem mbokki taalibe yi fu ñu mën a nekk ci àdduna bi bu plateforme bi egsee ci ñoom ñu xam ne ñii li ñuy def lu wër la te fu wër lañ ko jëmee te say danañ ko saytu ba lépp lu ci waaye def dana àgg fa ko taxoon a jóg kon nag mbir ngoog moo xam ne yombalal na taalibe yu bari yoo xam ne bëggoon nañoo barkeelu ci liggéey bi nu ñu mën a def ba barkeelu ci kon ñu ngi ciy soññi ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan ñu daje cee ngërëmul sëriñ Touba te rafet nañ jortu ci liggéey bu sëriñ Touba nangu la ndax li koy wane rek. mooy bi mu tàmbalee yàggul waaye taxawaay bi rëy na lool ràññiku na lool rafet na lool te itam defin mi ko defee mucc na ayib ci ak jub ak jubal ak euh, euh, wér ba kenn ku nekk la mu ca def tolloo na ak li nga xam ne moo agsi ci loxoy daayira bi te itam day fés ba ñëpp di ko gis man koo xam muy mm, dëppook la kilifa ga waxoon ne murid yi nangu nañoo joxe seen alal ngir sëñ bi la am kay mooy deneen laaj lu ñu man te di ko def fu ñu xam ñu ngi xam le ne kon li ñu laaj te ñu man ko def nañ ko waaye def nañ ko itam fu ñu xam ndax yii ma leen wax leen lu nekk wane nañ ko wane itam leen lu nekk la ci jëm ñu dugalal leen fa seen liggéey booba kon nag ñu ngi sant ñëpp ñu ci participer waaye di woo itam yëpp bépp taalibe ak fu mu mën a nekk te jot ci mu xam ne bunta goog boo xam ne ku bëgg a liggéey Sëñ Tuubaa mën nga cee jaaral liggéey Sëñ Tuubaa ci jumaa ji ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.